loolu ñu ngi koy dañ koy dañ koy ñaawlu fa fa ñaawlu yam eh, di ci ànd ak suñu directeur général moo ko njëkk a ñaawlu moom nag moo ñu ni tey ñu ñëw ak eh, délégation bu mag ak membre comme dire yu mu àndal pour eh, ñëw massawul suñu suñu collègues yi ñu fi fekk indi message bu leen di bu leen di gën a encourager ah, ndax Euh, lii épreuve la boo xam ni kenn xaaru ko woon mais euh, jëf ji ñaaw na ba ba jéggi dayoo donc euh, donc ñëw bi looloo ko sabab mais également kenn ñëpp xam nañu ni dëkk bi dafa am kilifa muy xalif général bi donc wax nañu ni bu ñu ñëwee nañu dem ba ci moom waxtaan ak moom ci li xew ñaan ko it mu jàppale ñu ci. nga xam ni jëf yu mel nii dootu fi amati dinañ ko dinañ waxtaan ak moom it ci importance bi directeur général jox Touba en tant que ville ak euh, euh, jëf yi mu yi mu sabab pour que clients yi fi nekk mën a jëflante ak ñun ci anam yu yu yu neex anam yu yu baax mooy agence yi nga xam ne daf ko multiplier d'ailleurs boo xoolee euh, je pense que Touba mooy seule ville boo xam ne am na ñetti agence principale te loolu message bi ñuy jox suñu clients yi la ndax fonk mu leen fonk ak euh, euh, bëgg gu ñu bëgg lépp lu ñuy jëflanteek ñun ñu def def ko ci anam yu yu leer ak ci barab yoo xam ni mucc na ayib buñ fa ñëwee nañ fa mën a def seen li ñu soxla yépp ci ci efficacité ak ak bànneex. waaw mën na nuru loolu waaye du loolu ndax. boo xoolee euh, agence bi ni ñu ko liggéeyee ak euh, euh, précaution yi ñu jël yëpp pour sécurité bi bi mat gis ngeen ko gis ngeen ñoom pexe yi ñu def pour dugg ci kër gi yombul woon te xam naa ni it jëloon na temps bu mag lool moo lay wan ni rek Senelec mi ngi sàmm alal bi nga xam ni moom lañ ko dénk mu koy mu koy mu koy gérer waaye gis nañ ni it communication bi. surtout euh, utiliser yeneen canaux surtout le canal communautaire dinañ ko am na ku ko junj léegi muy euh, idée bu bu pertinent dinañ ci travailler mais du pour waa population Touba rek population Sénégal ak suñu clients yëpp la. mais euh, li am solo tamit mooy boo nekkul client Senelec tamit voisin wu Senelec ndax dend nga ak installation wala bureau wala jumtukaayam donc ñun. faw dañu war a am relation yu yu rotax yu yu yu baax ak population yi ak suñu clients yi te loolu dinañ ci volet communication bi nañ ci def comme te lay kàttan ba nga xam ni euh, du Touba rek waaye Sénégal gépp message bi dina jàll euh, sénégalais yi xam ni Senelec seen moomeel la ñoom ñoo ko war a sàmm buñ ko sàmmul kenn du ko sàmm waaw loolu ñu ngi koy xayma te yeggagul ndax euh, euh, def nañ constat huissier ñu war a def yëpp liste yi ñu koy établir xam naa dinañ ko dinañ ko valoriser bu liggéey bi yembee rek incha allah dinañ ci euh, ko ak yéen xamal leen ko waaye boo xoolee agence ni mu toll ak ni ñu ko équipé woon ak yàqu-yàqu fu mu toll war nañoo ñaaw njort ni yàqu-yàqu bi dina dina am solo trop.